Urbino. kii mooy. Urbino. Olbey. Zak maa ngi nii lala. Kaay. amul day waay sël. waaw du la ko dégg du la ko dégg. bala sël nag waaw. ndax sa bët yi baaxul. xaaral ma ñëw yaa xew ko nag. Fatou loolu yëpp taxaw. yow taxaw ni muy. Amar taxawal. yoru appareil. Amar suñu waa kër yi la. waaw taxawal. Adja mil paas tamit.

def naa ko. dama ne foto nga ñëw. moo ngi nii foto na la. damaa damaa bëri. foto nga foto. damaa damaa bëri baaxul nee na. Ouais, ay farol farol. Am erreur. Eh, eh, oto bi. Ah, wala ko lay waay. Uy. Dama bay ar. Mo wol. Sorry ko jëlaat. Jël. Jël. Soo TikTok ngay wër ak lay laaj. Wala ko sey ngay jëf suñu. Dama ko lay. Biz galiba otlamayı Allah'ım maymun. Sahar mı dedim bir o mu? Bu da kim fıra var? Abi gece bir o ne bu falan. Abi bunu mu diktim lan? Kimi lan takacak lan? Dur mu? Fıra iki yana kaynıyor. Ama tavla tavla tavla. Lokabı değil mi? Lokabı.

ñu jaajëfal leen mbokk yi leen am mbégte am contentement bu yaatu ci yéen macha allah gis nañ ñi ngee ñu aimé vidéo yi waaye gis nañ ñi ngeen ñi abonné ku ne xam na ne da béyam bu Balla Gaye numéro de moo doon bëreeg Tafatine am ndam ci kaw Tafatine euh, titre de empereur la Balla Gaye doon bëre moo am ndam ñu félicité waat ko bu baax a baax encouragé ki nga xamante ne mooy Balla Gaye numéro 2 mais Aïcha ba tey ñu ngi koy ñu biir ko ñoom Balla Gaye numéro 2 ñu toogoon nag Gambien yi ñoom ñu ku ne xam ne ñoom it ñu bëgg Balla Gaye numéro 2 la ñu sonn ci ay yëfam macha allah bu amee combat Gambie la ñuy jugee de ces combat de ces 3 jours 4 jours la ñuy jugee Gambie ba yàlla laa toogal macha allah ku bëgg Balla Gaye numéro 2 <laughs> dama koy nuyu jox ko mu nuyu la. fay naa la. Ba la. Ivo Ba. ku jugee Gambie. waaw. gis si police Balla numéro 2. da koo jar de. sa diggante ak fuñ ko munti naata rek weesu na fa. barke yàlla. Balla Gaye dama koo bëgg a bëgg bëgg xam ne aw ma si benn sago. wóor na yàlla. ban année nga commencé supporter Balla Gaye de. depuis 2010. 2010 waaw ñun daanaka léegi nekkuñ nekkatuñ mbër ak supporteram sax ñun léegi famille leen waaw. nga yàgg koo topp yàgg koo bëgg bu amee combat nga jógee gàm bi ñëw euh, démb seetaan nga ko. démb seetaan na. moo ñun di bu ñu jógee gàm bi ñu ngi ambiance zéro stress. moo tabatin fu ñu ko jaaral rek lañ koy jaaral. bu doon keneen la sax mooy mu jar ay xalaat wala am si ñaari xeer. bon lii du làmb. ragaluñ tiitu ñii rek. waaye képp ku xam Balla Gaye xam nga ne Balla Gaye ak fitam lay bëree soo ñun supporter Balla Gaye du ragal du tiit waaw. démb bi at bi siflee Balla Gaye xeex ak euh, Tapha Tine ndax ñu ci bëri ñu ngi naan sax Balla Gaye bis bu taxawee corps à corps ak Tapha xeex ak moom Tapha mën na koo dominer ci xeex bi mais ñu gis Balla dominer Tapha Tine ci xeex ba yóbbu ko ar bi ñu ko yóbbee ar ñu gis yéen ngeen jug si bi la di. waaw ñun loolu dañ koo taamu ni ñun samedi bi fii kenn nelawut xoolal dañu depuis samedi leen commencé di fêter suñu victoire. xam nga ne loolu kon ku ko def ku ragal du ko def ñun depuis bu ñuy jógee Gambie lañ xam ne ndam la ñuy ñëw jël waaw tiituñu ragalul barke Sëñ Fall wër na yàlla. kontaan kay barke yàlla kontaan na bég fans club bi ñëpp kontaan na bala guddiwal nañu bëccëgal nañu taxawal nañu fu nekk xolal ñeewuñ suñu benn morom baal lay def déplacement jóge fii ba Gambie Dakar ba Gambie ñëw seet si toog waxtaan ak moom jox ñu cër bi nga xam ne daanaka léegi du mbër ak supporter sax daanaka ñun ñëpp famille lañ barke Alquran Karim am na li xam ne ñun fii saa yu ñu neex lañ fii ñëw def lu ñu neex xam nga nit ku la rek moo lay mën a nangu lu nekk waaw loolu la. gis nga ñu ngi leen di toppatoo indi nañ leen reer ngeen reer ñu dalal leen macha allah bale gis nañ ko sànq tamit moom mu ñëw toog ak yéen waxtaan macha allah ñi dañoo bokk ñun dañoo bokk si gaay gaay bokk si ñun ba pare bu ñëwee ba léegi kenn génneewul sa cent franc jënd nañ wax ne xaaral ma jënd lu ma lekk dañuy tubal añ bu doy ndekki bu doy reer bu doy dañuy lekk ba mu des wóor na yàlla dañuy lekk ba di ko xool di ko tiim nii da jox ñu cër bi nga xam ne macha allah maruñ xiifuñ dañuy tëdd fu baax tegal ñu xoolal di nga wifi gis nga fu ma connecté wifi laa connecté jënduma crédit kenn jëndu piis di noos def lu ñu neex war na yàlla. Balla di ko sant di ko gërëm di ko ne yàlla na ndam li di continuer mu ñuy tegle ay ndami ndami ndam yàlla ma ko fan bu gu yaram bàyyi ko fi mu toog ba moo jabaram ba ñuy suuxiyante bay jaaw buri itam doon ku baax ku wàcc moom itamit teg nañu fi sori. saa yum ñu déggu sax daf ñuy woo di ñu nemmeeku di ñu xool macha allah ñun fii moom amuñ dara lu ñuy wax ñun boolal booy compter fans club yu gën a ngand gaam ñun ñooy premier ñun namuñ dara fans club Balla Gaye foo ko dégg fu nekk dañu ne ñii ñu moom seen mbër taxawal na leen da Balla kenn yab ñu macha allah lu nekk la ñuy defal dañuy dagal bis mu ñëwee dañuy lekk añ ndëkk lu nekk fii lay jógee gis nga sax yow gis nga macha allah. waaw ñun ñu fi ba wala ñun la des wala instant bu ñëwee gars yi dañuy ñibbi sa gars yi dañuy jooy ñu toog leen toog leen toog leen ba fu mu toll moom ñun ñoo bëgg a dem rek mais instant yi gars yi bëgguñ sa ñu dem tey lañ naroon nag mais ñu na ñu toog ba suba. xam nga loolu moom ku la bëgg déggantaan mooy laaj nangu loolu wóor na yàlla billaahi. merci beaucoup kontaan naa ci. amul benn problème na ñun xoolal man instant yi gars mi ba gars mi boo demee il faut rek mooy man waaw ba mu bëri jëm waaw ba mu saf. ay suñu làmb ñeneen rek ñoom it ay supporteru Balla Gaye numéro 2 lañu. ñëwal ñu jël président bi moom it mu wax euh, naka la wax dëgg yaa dundee li nga xamante ne mooy euh, victoire démb bi. ndax ku ne xam na ne démb Balla Gaye numéro 2 am na ndam ci kaw Tapha Tine mu nekkoon combat boo xamante ne combat bu ama am solo la. mu nekkoon combat boo xam ne tamit combat la boo xamante ne combat bu bëri woon tension la Balla Gaye defaat beneen retour tegaat beneen pas euh, ci kaw Tapha ñu toog ak ñi nga xam ne ñooy Gambie yaay fan si la ba Balla Gaye bu Gambie. waaw asalaamaaleykum si ñu ngi lay ziar bu baax yéen a ngi am jàmm baax waaw maay président fan si la Balla Gaye de Gambie ñëwoon jàppale si suñ mag suñ suñ rak suñ nijaay suñ xarit. suñ doomi ndey muy Balla Gaye 2 Omar Sakho waaw ñu ñëwoon ci bis bi euh, on était in fest muy le 21 waaw jàll na ci jàmm yàlla may na ci ñu ndam alhamdulilahi rabbil alamin euh, Gambi rek samedi lañ ko joge euh, saturday waaw lañ ko jógee ànd ak mbooloo mi mooy comme xale yi niñ taxee ni xam naa ci kanam tuuti di gis mbooloo mi ñu ngi ñëw woo naa leen léegi pour ñu taal bis bi ñëw ñëw comme jël nañ sa temps te boobu léegi yéen a ngi koy sàkk ñi ñëw saafante yéen jàppale leen ci liggéey bi parce que yéen it wax dëgg yàlla ki am yéeney toog xaar la waxtaan ak yow muy laajte ak tonto ngir seen liggéey amaase te liggéey bi ñun ñoo ko mën a ñoo ci mën a teg loxo pour mu amaase parce que yenu neen mënu leen jëlante ñun ngeen ñuy jël am lu ngeen ñu wan ñeneen ñi am lu ngeen jëlee si ñun ñu boolewante muy xalaat boo xam ne ni daay gën a yaatal liggéey bi ndax làmb moom nit mën a koo def sans télé understand nga te gis nañ ne seen liggéey moom tabaarakalla rafet na am na solo so dañuy ñaan suñu borom jàppale leen ci rek so yomb na tey nga yoroo li nga xamante ne mooy président fan club bu Balla Gaye numéro 2 nga jiite xale tey ñu topp sa ginnaaw tey wan na la yow lañ jiite yow yow lañ bëgg yow lañ teg foo xamante ne tey fu suñu kàddu eggul nga egg lañu eh, waaw sant yàlla yomb na eh, yombut waaye nag alhamdulilah ndax nit moom bu mbooloo taxawee lu ëpp eh, 200 300 people 300 300 personnes wala ba 400 ñi taxaw ñi tànnal ci yow kenn ne yaa ñi doy ci mbir mi kañ jëlee la ñooy moom luñ la mënta def rek sant la ndax loolu lu rëy la eh, bu dee jàng ñu la gën a jàng fa ne bu dee wax la ñu la dàq wax ñoo fa ne waaye suñ la doy la ne la kaay ñi ànd ci mbir moo xam ne nii ndeysaan alhamdulilah ndax ñun suñ association bi di Balla famille eh, lañ ci sant yàlla ndax. Eh, lu ne mu ngi ciy dox si suñ biir di tiranga ndax kii di Omar Sakho di Balla Gaye day weeru koor bu ne dañ koy defal ndaw moo rakkam ñu koy yóbbu si hôpital yi ak si prisine yi muy kaso yi ak ci jàkk yeeg mbedd mi di ci dimbale ni gi doole yi ñu leen ndax chaque weeru koor ñu jënd nag eh, boole ko ay kiis eh, di ko def sax di leen ci ñaanal ak yeneen ak yeneen xam nga di ci tuddantey doom di ci fasante kóllëre yoo xam ne nii eh, alhamdulilah ndax am na ñu ci tuddantey doom am na ñu ci nekk xarit am na ñu ci takkante ba ci man mii am naa ci soxna tan xam nga loolu fu ñu nii dootut waa ci biir gi xam nga loolu fu ñu toll nii dootut eh, fans club famille la moo tax ñu tuddee ko Balla famille bu njëkk Balla Gaye fans nga doon dégg waaye biñ gisee ne Salif mu ngi ci biir moo ko Omar a bokk ndey ak baay te mënuñ koy xaajale ñi def ko Balla famille nga xam ne ni eh, ku aaye ci ñoom rek eh, ñi ànd ceeg yow jóge ko Gàmbi def suñ mobilisation mag yeeg xale yi yëpp ñu ñu doon ñoo xam ne neex nañu jiite ndax duñ ànd ba nga dégg xeex wala xuloo wala dugg ci loo xam ne ni you know mbir la xam nga jamono toll na foo xam ne ni boo yolee ay ji mbooloo te jigéen ëpp fa nga ànd ak ñoom ñëw réew ba réew déggoo kenn ku sikku dégguloo kenn ku def noo xam ne naka su du noonu ñooy nit yar nañ leen te ñooyu neex nañu àndal ki neexu da àndal mooy kiñ tànn te du dara ñi jiital ko <laughs> soo that's all yeah hmm. doon laale ki nga xamante ne mooy Tafatine ñu tegale li nga xamante ne mooy titre ampleur Balla Gaye numéro 2 am ndam ci kaw Tafatine jël li nga xamante ne mooy titre ampleur bi démb ngeen demoon stade naka ngeen gisee ba ngeen demee stade gis seen lutteur gis Balla Gaye numéro 2 genre xeet bëri gu mu bëree ñu bëri euh, Balla Gaye numéro 2 bett leen ci xeex bi euh, ci bëre bi. Euh, loolu moom ñu ko faraloon la bett bëree bi Balla la ak melokaan bi mu ñëwee bi loolu ñu ko faraloon la la bett. waaye yéen ñii di ay journaliste eh, journaliste bettu leen ndax xam ngeen ko yàgg ngeen koy tiima yàgg ngeen koy seetaan ñun combat bi amul dara lu ñu ci bett amu lu ñu ci doon tiitit man moom wax dëgg su ma la waxee dëgg eh, buñ nekkaan stade musumee ko man tàggoo naa suma sago waaw lu ma jiite jiite mbooloo mi dootuma mën a contrôler suma bopp waaye combat bi bi mu taxawee ba tey bi may wax ak yow damay doon dara xel nit ñi yëpp xam ne fi nit ñi teg Omar ak fi ñu teg euh, euh, Tapha Tine dafa wutee tuutal nañ Balla Gaye néewal ko doole néewal ko mën a bëreem jël tafaa yëkkati ko ngir jëmm ji ak taxawaay bi waaye du foofu gis nga lim làmb ak fi mu yëkkatiwaat làmb ak lim wonewaat ci boppam kon fi ñu toll ni euh, nit ñi war nañu xoolaat ku bañ nag bañ na ku bëtam naqari moom mëntu gis lu baax te mëntu gis maaxu waaye mukk ci àdduna waaye ñun ak ñi nga xam ne làmb la ñuy dund xam nañ kan mooy Omar Sakho te gis nañ melokaanu mu indi te lii euh, exemple la bu amaatee beneen combat incha allah yàlla bu mu yàgg te bu amee yàlla na ko suñu borom may ndaw mu la gën a kawe si la ñuy gisaat beneen Omar bu différent ak Omar bi lii moom maa ko promis te téyel daan Tapha Tine ëllëgu Balla Gaye numéro 2 ñu naan courant bi euh, courant titre roi des arènes bi euh, war na ko jëlaat boole li nga xamante ne mooy ampleur bi ak euh, titre roi des arènes ndax ku ne xam ne ne Modou mooy li nga xamante ne mooy titre roi des arènes bi Modou tamit am na combat moom ak la léegi ñu ngeen ne da ngeen di toog xaar ku fa daan Balla Gaye ñun moom yàlla dogal na sax ñun Omar desalutun ni dara ci làmb titre beeg couronne beeg lépp roi des arènes bi am nañ yaqin ne dina ko indiwaat si kàttanu suñ boroom bu yàlla mayee dund ak wér ak kàttan eh, kanaa ñu ñàkk koy bañ a jël ki ko yore bañ ne du bëreeg moom waaye suñ fekkee ne nangu na ñëw sëgg bëreeg moom incha allah rabbi xam nañ ne dina ah dana jafe de pour gars yi war koo jëlaat ci loxo waaw <laughs> loolu moom maa la ko promise moom hmm. eh, kii bi ampleur bi coow li bari ampleur ak roi des arènes ban moo ci Euh, waaw boobu nag xam nga waxi sénégalais la miinin bi moom des naa koy understand waaye daal ak lu mu ci mëntu doon daal suñ borom dimbale na ko ko ba njëkk na koy jël ci biiri moromam kon alhamdulilah te gëm naa ne buñ fi génnee lii indi leneen it mën na koo jël ci kàttanu suñ borom waaw te ñu ngi ko koy ñaanal bu baax <laughs> maa la raw jërëjëf kontaan naa yéen ci yéen bu baax baax a baax merci